alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi allah allah allah allah jërëjëf baay jërëjëf baay jërëjëf baay jërëjëf baay jërëjëf baay jërëjëf كلا سنكتب ما دعوا للرحمن Lord. من أهل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 ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن ko koy Mouhamed Niass ibn Munhamina ibn Maulana Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass ñu nuyu kilifa yi xam ne yëpp aussi nañ ñu bàyyi si borom xam-xam yëpp ñëw nañu waaye këru diine yëpp ñëw nañu loolu la mag ñi xamoon ànd la bàyyi àndoon ak ñëpp ànd bu rafet tey njabootu Seydina Limaamul Mahdi yu ñu ngi fi njabootu xaadimu rasul si Ahmad radiallahu taala ñu ngi fi njabootu Seydi Ali Cissé dugg na ci njabootu Baay kon këru diine yëpp teew nañu kulooree ko nag teewaayu sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay nuyu di nuyu dinañ ci ñëw kenn ku nekk ci panel bi ñu war a def xamne ne bokk na ci ministre Bamba Ndiaye ak borom xam-xam yi ñëw kenn ku nekk bu àpp ba jotté dañu la présenté daañu wax té bi xamne mom nga fas yéene waxtaan léegi nag ñu jox bay sisi amna ñuy wax ndaw imam Cheikh Ahmed Tidiane Ali yàlla ko fi yàlla baye ki ay nijaayam ki ay magam ci ngorom moom imaam Cheikh Ahmed Tidiane daf ma wax benn wax nee na ma aadi Seydi Ali Cissé moo waxoon ne kuy dëgmal uttali yàlla bul gestu da ngay dëgmal rek ndax ku uttali yàlla du yomb ci moom laa toll woon toll fu xam ne waroon na mun a jël wërsëgam def ko ci boppam waroon na mun a xeeñtu mbiru àddina ba du ko jaral mu jël bés waaye xam yépp xam boppam waaye baayam bu gore gi baayam bu baax bi baayam moo ko yar ci lii xamul leneen mënul leneen kon du def leneen kon bàyyi ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla sàmm dama tërale woon nii ne bàyyi day dalal sëriñ bi waaye xamoon naa ne dina ma def la ma defoon daaw dama bëgg rek mu dig ma ndax du wax mukk te sëriñ mu naa mi ne waxul ba pare waaye il faut nekk ma def la loolu ndax nga defaat loolu ndax ma amaat ñaan comme ça yàlla nañ ko téeméer déwén ñu tëral nag tey balaa ñoo jox kàddu gi léegi sëriñ bi mu dugg ci conférence bi ñu ñaan suñu jarbaat soxna Siré mu ñëw am innovation la bu ñu indi ren ndax ku gis toogaay bu tedd bi soxna yi toog xamne ñom ñoom delluwuñu ginnaaw ci faylu bi ñëpp ñoko ko wuy kon bismillah aousbillah min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim au nom d'Allah le très miséricordieux le tout miséricordieux que sa paix et sa grâce soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille et ses fidèles compagnons que la bénédiction d'Allah soit sur notre vénéré cher Ahmed qu'Allah sanctifie son précieux secret. Que son salut soit sur notre cher et bien-aimé, celui qui mérite toutes les bénédictions, celui qui nous a ramenés vers le droit chemin et a fait de nous des hommes sereins, des adorateurs d'Allah, Maulana Cher Ibrahim Nias anhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbi alamin. Avant tout, nous vous souhaitons la bienvenue à cette deuxième édition de la journée du Baye, organisée en l'honneur de notre valeureux guide, notre fierté, notre très cher Baïnas, anhu. Cette journée est un prétexte pour montrer notre fierté et remercier cher Ibrahim Nias, anhu, pour tout ce bonheur qu'il a apporté dans nos vies. Chacun de nous ici présents peut témoigner des bienfaits que nous a apporté cet homme multidimensionnel qu'on aime sans limite. De par son leadership et son engagement dans plusieurs domaines, tels que la religion, l'éducation, la politique, l'intégration africaine, pour ne citer que cela, Maulana Cher Ibrahim anhu, nous a éduqués, rapprochés de Dieu. Il nous a appris comment l'aimer et l'adorer. Il a toujours veillé à la préservation de la tolérance et de la solidarité entre les différentes communautés religieuses, ce qui contribue au dialogue islamo-chrétien. Alhamdulillah. C'est grâce à Baye, Anhu, si nous sommes si fiers aujourd'hui d'être africains et si nous sommes motivés et engagés à faire de notre continent une puissance mondiale. En effet, il n'a jamais cessé de nous exhorter au travail. Comme exemple saillant, nous pouvons citer son discours prononcé à l'occasion du mois de 1968, où il s'est adressé à la jeunesse en ces termes. Chers jeunes, en avant. Certes, l'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Vous devez être cultivé et doué, de caractère noble. Une jeunesse sans culture et sans caractère noble est comme un arbre stérile. Appliquez-vous sérieusement et persévérez dans la quête du savoir, ne suffisent pas seulement les sciences religieuses ou les mathématiques. Dans ces diverses branches, rejoignez les chercheurs préoccupés par la découverte des secrets de l'univers, collaborez avec eux. Il était un fervent défenseur de la religion musulmane. Il n'acceptait jamais que quelqu'un s'attaque à la religion de son guide, Taha Salam alayhi wa sallam. Il le dit à ses propos Yahsuluni an aradinallahi, a azizan fi il me plaira beaucoup de voir cette religion d'Allah, qui est l'islam, d'être en tout temps portée haut et devant, afin qu'elle voie toujours ses ennemis dans la honte et dans l'échec. Toujours en ses qualités de défenseur, Baïnas, s'est aussi affirmé qu'un homme qui n'était pas des nôtres trouvait que le Sénégal, tôt ou tard, finira par se marier avec une autre religion qui n'est pas l'islam. Baï s'y oppose clairement en ses propos fa Sénégal, yaawi tahtazili muhammadin wa Budu, rabban jala shaanan ma wahida fa man zana haza fa zanuhu sakimun a alilun batilun lam ayada le Sénégal ne cessera jamais de vivre des retombées en bienfait venant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui se lèveront pour lutter contre sa religion s'aventurent dans un combat déjà perdu d'avance. Dans son livre intitulé Ifriqiya ilal Ifriqiyin, l'Afrique aux Africains, il y montre sa dimension politique. Il a marqué sa vie par des témoignages écrits à travers des livres de connaissances tels que Nouroul Bachar, des livres sur Cher Tidjani Radiallahu des livres qui racontent ses rencontres avec des grands érudits de l'islam, des manzilas, des Rihla racontant les instances de ses nombreux voyages, Guinée, Mauritanie, Mali, Niger, Nigeria, etc. Et aussi des régions même du Sénégal comme Dakar. En ce sens, il dit Je suis venu à Dakar, j'y ai trouvé des gens qui m'aiment. Je suis venu à Dakar, je n'y ai trouvé que mes adorables disciples. Il était un homme universel, puisqu'il a visité beaucoup de pays pour la quête de la paix dans le monde à travers l'islam. Sur ce, Baïnias nous enseigne à nous, la jeunesse, d'être des références dans la famille, par le respect des parents, dans la société, par un bon comportement et une quête sans limite de savoir. Pour ce faire, les jeunes doivent avant tout étudier pour réussir. Aussi, ils doivent s'investir dans des domaines tels que l'agriculture, les nouvelles technologies, la santé, le social, le développement économique et culturel, tout en respectant l'islam à travers l'application de la charia. Nous ne serons terminés sans porter une pensée pieuse à ces humbles serviteurs de Dieu qui nous ont quittés et qui ont œuvré toute leur vie pour le rayonnement de l'islam. Nous leur rendons vibrant hommage aujourd'hui. Nos remerciements aussi à ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation et à la réussite de cet événement. Nos plus chaleureuses salutations à notre bien-aimé Khalif. Cheikh Ahmed Tijan Ibrahim Niass. Tout en lui souhaitant une longue vie, ainsi qu'à toute la famille de Baye Niass, Merci de votre aimable attention. Je vous léegi Les dañuy delloo borom bés bi bés bi muy Serigne Cheikh Mouhamed Niass Mohamed la ñu jox kàddu suñ ko joxee mu dugg ci conférence bi incha allahu taala bu ñu paree ñu dugg nag ci panel alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin sayidi lawalin wal axirin wa ala alihi wa sahabatihi wa ala tabiin wa tabiihim bi ihsaan ila yawmi din رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk yi fi teew yëpp ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di sant yàlla ci bépp daje boo xam ne daje nañ ko ci kaw tawfiq bu ñu yàlla may ñu daje ko te yalla rek tax parce que amna lo xamne wax nañ ko waxat ko waye nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo jangalon nañu al birru la yabla lolu moy lan moy bu la yalla maye bu la yalla maye lu baax bu fekkone mbu lu baax la soko amé yow am nga mbubb moo xam ne du ràpp du xotteeku du démodé loolu mooy mbaax kon loolu moo waral lu baax moom lu luñ ko wax wax wax rek mën nañ ko mën nañ koo waxaat loolu mooy lan moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo jàngal nañu ay mbokki jullit buñ dajalooyee te yàlla rek tax fekk ñu ngi gëj a gisante ñu daje kenn ku nekk nuyu sa morom wan ko ci sa xarxanam ne ko daje gi ma dajee ak yow neex na ma bég naa ci nee na kenn ku ci nekk bàkkaar boo indiyaale woon te jotaay ba lu màgg màgg màgg màgg dafay mel ni yow mu ah, euh, garab gu wow garab goo xam ne xob yi dafa wow ba pare ngelaw lu lu am doole upp ko yaakaar naa ne loolu jar na ju fu jógee fu nekk dajee ngir yàlla benn bés yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog am di wax fekk benn waaye ñëw na ci mbooloo mi di dégloo waaye ca gannaaw mbooloo ma la taxaw mais bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ba agsi ci ne am na ñoo xam ne ci àddina bi biñ fi nekkee dañ leen doon jàppee ay nit ñu ordinaire nit ñoo xam ne xamuñ leen ci dara ràññeewuñ leen fenn du ci ndomba tànk du ci du ci xam-xam du ci daraja bu ñu leen xamee ci diine wala ci leneen waaye buñ demee bés penc ba nit ñëpp géew ba yàlla géew nit ñi ñoom danañ am ak yàlla jotaay boo xam ne jege ga ñuy jege yàlla ak kawe ga ñuy kawe ak leer gañ àndal dana tax yonent yi sax di leen laajte ñii ñooy ñan di leen ñee te ñoom kat duuñu ay yonent waa ji wax ji wax jooju attiré ko mu xuus mbooloo mi ñëw ba ci wetu yonent bi sallallahu alayhi mu sukk ci kanamam ne ko sifli haawulaay hatta aarifahum waaw gaa yooyu ngay wax seen mbir doy waar ñooñu kenn xamu leen ci àddina te àllaaxira ñuy jege yàlla jege goo xam ne yonent yi sax dañ leen di laajte ñooñu ñooy ñan wax ma ko pour ma xàmmee ko mu ne ko dara mënoo leen koo xàmmee ci àddina lu may ne am na ay bés yoo xam dañuy dajaloo rek yàlla tax dajaloo googu ngay dajaloo yàlla tax ci lañ amee bés penc ñu jege yàlla jege goo xam ne yonent yi dañ leen di laajte bu ñu amee nag ñun sens bu mel noonu dajee fi ak ay mbokku jullit dajee fi ak ay wàllu yàlla dajee fi ak ay doomu wàllu yu yàlla kilifa diine yi ci Sénégal yépp dajee fi parce que seen représentant dajee na fi kon loolu bés la boo xam ne bésu sant yàlla la bés la boo xam ne bésu xéewal la bés la boo xam ne ku ci nekk sañ ngaa yaakaar ne soxla boo fi indi boo ko ñaanee yàlla dana la ko fajal yàlla na ko yàlla def sànq chauffeur bi ñu àndal muy ku baax di chauffeuru Cheikh Mamoun Maxa dafa génn léegi ne ma ne daf doon jëndi xaw ma huile la doon jëndi pour otoom bi xaw ma lu mu doon jëndi mais nee na dafa wër station yëpp ñu ne ko station yëpp tëj nañ kenn jaayut dara lu ko waral mu ñu ne làmb ji xaw ma lu may wax ci làmb ji sama yoon nekkul ci làmb ji waaye daal loolu wane na ne wane na ne comme ñi ngi ci jamono joo xam ne kenn ku nekk lam gëm jaral na ko lu nekk ma ngi cay sonn def ci itteem def ci def ci alalam def ci léppam bu ñu sàgganee ba Sénégal gii ku nekk fonk la mu war a fonk ba mu des diine kenn fonk ko kenn utalu ko bés kenn màggalu ko bu boobaa yaakaar naa ne cëru Sénégal ci yàlla dana dana dana xaw a sooxe te Sénégal loolu du wàllam kon ku nekk na dem ca la mu gëm waaye tamit nag ñi nga xam ne diine moo leen ñor ñoom it diine la leen jaral bés bu mel nii ak bés yu mel nii benn waaye bu ñàkk fayda daf ne ma dama dégg benn journaliste bu ñàkk fayda bugguma sax tudd turam ne Sénégal li ne développement wu Sénégal mooy événement wu diine yu bëri yi gàmmu yaag màggal yaag conférence yaag heure bu nekk ñi ngi def ay kii nit ñi duñ liggéey mu ne loolu moo ne développement wu réew mu ne ko yow day euh, sa njàng sa njàng mi bu fekkee ne sori na jaaxal na ma parce que yéen yéen yéen yi jàng économie jàng tubaab yéen a doon wax ne euh, économie li koy doxal mooy créer pour pour doxal ko dafa laaj créer ay événement évétement mooy indi mooy indi dox dox mooy indi euh, développement ma ne ko léegi boo jëlee léegi màggalu tubaab laajteel lu nekk jaaykat lu nekk maanaam laajal transporteurs yi laajal sëfoor si kenn ku nekk lu mu daan am par nga laaj ko ci ci ci ci ci semaine màggal googu ñaata la ci am ci xaalis laajal Senelec ñaata lañ dugal ci facture laajal euh, SDE ñaata lañ dugal ci facture laajal jaaykat yi kenn ku nekk nga laaj ko moom ba mu jaayee kenn ku ci nekk nga xool chiffre d'affaires am ci màggal googu ci diggante boobu lan la lan la def laaj leen ko ci mag ci ci ci ci ci kii bi maa ngi maa ngi gis ay jaaykat yu wër yoo xam ne maa ngi leen gis dina ca gàmmu ga fa nekkoon bu ñu fa jógee rek poroxaan lañ jëm fa la ñuy nekk ba poroxaan jot ñu dem poroxaan bu ñu jógee poroxaan rek màggalu Tuubaa lañ jëmaat ñooñu yaakaar naa ne ku leen wax na leen euh, diine ji mooy freiné euh, réew mi ñoom duñ ko nangu parce que ñoom année bi yëpp ñu ngi jaay te ci duru diine ak événement wu diine yi ci la ñuy jaayee loolu yëpp nag su amee. li muy tekki mooy ne ñi nga xam ne ñoo gëm diine war nañoo taxaw mu jaral leen lu nekk kon bàyyi ji Cissé jërëjëf ci bés bu mel nii euh, jërëjëf boo wàccagut man nag comme ay kilifa yu mag ñoo fi nekk ay borom xam-xam te suba ba léegi ñi ngi fi te xaj na am na leneen lu ñu war a def damay bëgg a gàttal nuyoo beeg yooyu bu ko defee daal di dugg ci li nga xam ne mooy sujet bi yem ci liñ ma sant suma paree leneen li nga xam ne Euh, ñi ko war a def war nañ koo def ku ci nekk def li nga war a def dañ ma sant ne naa def benn gëstu bu ndaw ci jàmm nan lañ mun a def ba jàmm ñëw te sax te jaarale ko yi tamit ci lislaam jaarale ko yi tamit ci solidarité dimbalante xam naa ki doon wax moom bi mu ràbbee ni ñu a tëralee conférence ba pare rek moom indi na solution parce que bi mu ne jàmm ne solidarité kon danaka conférence bi fofu la warona a yem parce que bu solidarité amé rek jamm am ndax mama la Abdoulaye bi jur baye bim démé ba atam yu mujj daf dan tok té bobu kat gaay dañ ko yërëm rek ci lim nek mak wéradi ak ak responsabilité bu mak bim yoré njabot gi am ci ñenn ñenn ño xam dañ koy ñëwéti diko wax seeni soxla mom nak daf koy gêné mu tok semaine ñaari semaine ben nit ci njabot gi ñëwut wax ko soxla bu ko defee mu oo leen ñoom ñëpp ñu ñëw teew mu ne leen yéen bu leen ma def lii lii baaxut di bu leen ma def lii lii baaxut wax leen ma seen soxla yi parce que man ngeen ko war a wax lu ma ci man dama koy faj lu ma ci mënut nag am naa ku ko mën a faj mooy ma mooy yàlla ma tàllal sama loxo ñaanal ñaan ñaanal leen ko mu fajal leen déglu leen nag lam ca teg mu ne lu tax parce que nit soo ko tanee te doo ko dimbale doo ko gënal kenn nit soo ko tanee te doo ko dimbale doo ko gënal kenn dafay bañ a wax daf lay bañ parce que nit yàlla am na baat yoo xam ne sax du ko tudd dafay bañ a wax daf lay bañ mu ne doo ko gënal kenn waaye en réalité nit soo ko tanee te doo ko dimbalee bu bu maandoo ba maandu ci la lay bañ a gënalee kenn mais su su du nit ku nit ku mat sax ci ci bañ la lay lay lay lay jëm kon daanaka turi euh, temu conférence bi ni ñu ko libalee rek réglé na problème waaye nag man damay wax ak jullit ñëpp wax ak jigéen ñi wax ak ndaw yi ne leen. gis nga ponk l'islam juróom yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na buniyal islam ala xams shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salati wa itaai zakati wa sawmi ramadana wa hajjil bayti liman istataa ilayhi sabila juróomi ponk yi nga xam ne moo moom mooy ponk yi mooy piliers yi nga xam ne ci ci la lislaam di taxaw mooy wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mooy taxawal julli juróom mooy oor weeru koor mooy joxe asaka mooy dem aj gis nga juróomi ponk yooyu léegi nii suñ ko jàngatee ci jàngat bu gaaw rek solution wu àddina bi yépp surtout solution wu boo xam ne solution islam la mi ngi ci mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ci biir euh, juróomi point yooyu dafay des nag bu fekkee ne maanaam nit ki xottu diine ji rek moo ko moo ko intéressé wax ashhadu an laa ilaaha illallaah bu ñu noddee mu dem ca jumaa ja julli ji euh, bu mënee génne asaka génne asaka mu jeex waaye lan mooy mooy li nga xam ne moo mooy secret bi ak la nga xam ne moom mooy mooy foofu la yëf yi bugg nga nga dem boo ko xamut nag ci kaw nga yem rek waaye dañuy wax ne shahadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadu rasulullah li muy njëkk a jàngale mooy shahadatu an laa ilaha illa allah parce que déglu bu baax yàlla waxut ne an taqula la ashhadu an laa ilaha illallah waxut ne yow ponki lislaam bu njëkk mooy nga wax ne xam nga boo waxee rek dugg nga ci diine ji waaye yàlla nag bi mu koy wax waxut ne nga wax ne daf ne nga seede ne seede nag bu comme olof la ñuy wax laajte leen yéen ñi dégg olof xam ngeen seede mooy lan lan mooy seede buñ demoon tribunal wala ñu toogoon tey di war a atte ci mbir kii war a àtte toog lu muy wax daf naan seede yi kaay leen taxaw seede mooy lan mooy ki ko fekkee déggu ko wala mu gis ko mën a wax ne nii la demee woon nii la demee woon nii la demee woon maanaam seede moom fekkee la wala dégg wala gis dégg wala gis fekkee loolu mooy seede te loolu la yàlla utiliser ne nga seede ne xam nga loolu li muy tekki mooy nga wax baat bi ne ashhadu an laa ilaaha illallaah tàmbali la waaye nag am na war a am na dox bu war a topp ca kaw parce que da war a àgg ci dem ba seede ko seede nag mooy loo xam loo dund loo xam ne boo ko boo ci seedee ñu mën cee teg atte te atte bi jub kon baat bi wax bi dox la war war dox war na caa topp dox bi nag fu la jëmee mooy nga àgg ci am yaqiin àgg ci yaqiin loolu su ma ko bëggee tënk rek dama koy tënk ci aaya bi yàlla wax ne يا أيها يا أيها أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي غيسغا غيسغا غيسغا سار بوبو رك ولا آيو يوي رك ريزيمينا تنك نا ليغا خامني موم لاني موم لاني بوغا واخ لي باسكو يا يالا دا فاي واخ اك امنا باكن بوموي واخ نيكو اي يو سما باكن بي غا خامني مالا بيند واي نك دوخغا غناو بو واخي اش باسكو باي نيس مو دون واخ ني موني جوليت soko bëggee tënkal mission am ci àddina da nga koy wax ne ko jullit mooy koo xam ne ba nga xasee ba wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah li des ci sa dund bi yépp dox pour dëggal sa ashhadu an la ilaha illallah la war a doon baat boo wax loo jëf rek dafa war a dëppoo ak ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu mooy jullit yàlla nag ne yow bakken bii nga xam ne dem nga ba àgg ci dal àgg ci dal posé équilibré dara mënutu la déstabiliser dellu sil nak ci sa borom nga fekk ne yàlla mu ngi la gërëm waaye boo ñëwee ba ci moom comme gërëm na la yow yi tamit da nga da nga ko da nga ko gërëm parce que da nga fekk bu dencal la ci ay xéewal loo xam ne boo ko gisee da nga gërëm waaye nag déglu lim ci teg fadxuli fi ibaad yi àndal duggal ci sama biir jaam yi nga ànd ak ñoom ñëw dugg aljan baat boobu rek suñ ci taxawoon rek doy na conférence parce que yàlla wax na ne bakkan bi dañ koy dafa dellu ci boromam ñu yar ko ba mu dal ba nga xam ne dara tiitalutu ko xam na ne lu ko dal rek mënu ko woon a ñàkk dal parce que yàllaa ko dogal waaye xam na ne lu yàlla dogalu tamit bu ko àddina bi yëpp pexee mun munu munut koo dal loolu mooy mun nafsul mutuma innatu ci zahir bi mu ne ko nag parce que da ngay da dellu ci sa borom dégg nga waye gannaaw loolu nak mu ne ko duggal ci sa biir waxut ko rek ñëwal aljana directement waye daf ne ko duggal ci sama biir jaam yi nga ànd ak ñom ñëw aljana xamna naa ku ko mengale ak li yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan man lam yahtaba bi umuril muslimina fa laysa minhum da fay daldi dem manam yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf doon wax ne ko xamne mbiri julit ñi itelu la seeni souffrance itelu la seen problème itelu la seen feebar itelu la bu yeboo nga baña julli baña or parce que bokko ci julit ku reer ba suur dend ak waay joo xam ne xam nga ne reerut nga ne sama yoon nekku ci man daal xam naa ne man euh, xañuma ko reer man reer naa ba pare rek sama yoon nekku ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jarul ngay julli ngay oor tax mu ne xoolal nag aljanna ji nga xam ne ñun ñëpp moom la ñuy ut yàlla bi mu tarbiyaa bakkan boobu ba bakkan bi dal ba mu ko ne ñëwal waxut ko ne ko ñëwal daf ne ko àndal ak jaam sama jaam yi nga ñëw xam nga loolu li muy tekki mooy nit dafa war a itteewoo mbiri jullit ñi nit dafa war a am ku tane moromam jullitam daf ko war a dimbale loolu mooy solidarité loolu rek doyoon na doyoon na conférence gis nañ ci benn benn benn benn benn benn xis benn nettali bu doy waar imam cheikh sisa moo ma ko nettali mu ne ma nijaayam amat tiane yaakaar naa nijaayam la amat caane euh, dafa am benn mbokkam bu jógee fii si saalum ci jamono bàyyi ñëw bugg a gis bàyyi mu jafe ko lool mu essayé essayé mu të xam nga bàyyi mii ngay gis nii mu ngi ne fang ci mbedd mi nëbbatuwut daanaka du dugg néegam waaye nag boo ko buggee gis te te te te joxul la ndigal yi tamit gis ko yomb waxuma gis ak bët nii de ñëw na ci dëkk bi bàyyi ngi fii demut fen mais du ko gis ko mënu ta wax ak moom parce que bu génnee ma nga jëm ca jumaa ja su jógee ci jumaa ja ma nga ca darsu suba su jógee ci kii ma ngay recevoir ay borom xam-xam mën nga fee nekk di ko xool nii rek mais doo jot ci ma mukk ah, nag moom bi mu ko ko jàmbatalee mu ne ko ah, man dey mën naa laa dimbale def pexe ba nga àgg ci bàyyi mu defal ko pexe ñëw ci bàyyi ne ko kii sama mbokk la daf fay ñëwoon am soxla bugg ñëw ci yow mu tëkku bàyyi jox ko rendez-vous ne ko demal ba heure sàngam nga ñëw déglu leen bu baax li tax ma ne fatxuli fi ibaad yi watxuli jënnati comme xas na ba jot ci bàyyi heure bi jot rek mu jaar na le rek ñëw ci bàyyi directement bàyyi fa amat caane bi mu ñëwee bàyyi na ko ana ki nga àndaloon mu ne ko ah, man damaa jaar nii mu ne ko dellul boo àndut ak moom bu fi ñëwati boo àndut moom bu fi ñëwati maanaam li ma bëgg a wax mooy képp ku yàlla may teraanga moo xam xam-xam la moo xam lu mu mënti doon la soo ko parewut a bokk ak jaamu yàlla yi yàlla ne la demal fële bu fi ñëwati loolu nag boo ko boo ko boo bëggoon a tënk solidarité xam ngeen na nag boo ko dënk tënkaleeg li Maam Alaaji Abdoulaye waxoon léegi ne yéen bu leen ma def nii ndax nit boo ko tànnee te doo ko dimbalee doo ko gënal kenn kon da ngay gis ne solidarité mooy base bi nga xam ne képp kuy tabax jàmm mënoo koo ñàkk tabax ci kaw loolu parce que nit ki nga nga xam ne euh, euh, xaaral ba ci kanam tuuti sax danañ ko gis benn bi kon mooy yaqiin yaqiin mooy lan mooy nga óolu yàlla xam ne yàlla moom rek moo am moom rek moo man te moom rek kay def kenn kuy def ku dul yàlla newu ku def rek yàlla la def loo boo àggee foofu da ngay mën a am da ngay mën a dootoo am problème ak jaamu yàlla yi da ci bu àggee foofu da nga ciy teg sa maanaam am sa sa biir sa intérieur dafay set sa lisaanu xaal toujours dafay jàng qul la yusibanaa illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa alay fali tawakkil mutawakkilun yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax leen waaye nag bu leen yem ci wax na ngeen dem ba mu nekk seen xaal ngeen di ko dund kenn ku nekk jamono ju nekk rek lisaanu xaalam nay jàng aaya bii nga xam ne mooy lan mooy wax ne man de dara lu yàlla dogalut mënul maa dal waaye nag lu yàlla dogal yi tamit nag aw ma benn pexe pour mucc ci nit nag bu àggee foofu wax ko yomb na mais boo demee ba gëm ko ba di ko dund bu boobaa doo doo doo doo doo dootoo lolu ci gàttal moy ashadu an la ilaha illallah bo ñewé nak ci ashadu an muhammad rasulullah mom limi jàngale moy mbax mbax la dox jëm ci yàlla amna waye nak dox jëm ci yàlla bu amul kay bu amul bu amul kilifa mënul nek xam nga bay ñas ci deg degum ci alquran dafa am lu mu wax yàlla dafa wax ci alquran ne man yahdillahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida yàlla nee yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow sax mëno jubal nit yow da ngay tegtale yonu njub o nit ñi ci njub mais man jubal nit ci manam bind njub ci xolu nit ki duggal ko ci xolam lolu yonent bi sax mënu ko yalla ko man innaka la tahdi man ahbabta lako yàlla wax walakin la yahdi yow mëno mëno mëno ko bëggu mu jub rek nga jubal abu talib bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bokk ak baayam ndey ak baay fonk ko lool dimbale ko lool waaye ba mu demee bay waaj a dee yonent bi ne ko ah man de boo mënoon a wax ashhadu an laa ilaha illallah benn yoon ma garanti ma garanti la aljanna mu ne ko rus naa ko mënuma ko mënuma toog bay dee di di wax ashhadu an laa ilaha illallah kon yaa yonent bi mënta jubal ku ku ko neex parce que wax dëgg yàlla ku moomoon moo tax salmaanul farisi dafa toog ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu yàgg mu ne ko maa ngi sant yàlla bi ma xamee ne mbir yi nekkul ci sa loxo yow nit nit nga maa ngi sant yàlla bi mbir yi nekkul ci sa loxo mu ne ko firil li ngay wax leeral ko mu ne ko dama xam ne parfum bu neex bii ngay xeeñ nga xam ne man maa nga ca Iran ca Paris yow nga nekk ci Makka xetu parfum bi jéggi géej yi jéggi asamaan si jéggi jéeri ci ñëw ba agsi ci man xaw ma fu parfum bi nekk ma di ko xeeñtu ba agsi ci yow sa baay jii sës ci yow soj jàpp ko ba mënta xeeñtu xeeñtu xeti parfum bi moo ma xamal ne ma mbir yi nekkul ci sa loxo parce que ku doon séddale teraanga nag sa baay ne fi boo sañoon jox ko ci mais booy séddale teraanga mënoo cee jox sa bàyyi dafa fekk ne teraanga ji nekkul ci sa loxo loolu loolu mooy mooy mooy mooy nu mu kon mu yàlla ne ku yàlla nam ma jubal kooku rek mën a jub waaye ku yàlla nam ma réeral du la booleeg wali yu mursid maanaam du la booleeg ku la méngoo di la jubal bàyyi ñas radiyallahu anhu ci dégg-déggam ci alquran mu ne waliyu mursid mooy ki lay méngoo di la jubal ku ci génnee sëriñ wax ko lu wax ma lu ciy des maanaam mu mel ni yàlla dafa wax ne ku yàlla bëgg a jubal da nga jub waaye ku yàlla namm te jubal du la may sëriñ wala du la may du la may kilifa sëriñ mënu cee génn kon xanaa dañ ciy déggee ne ku yàlla nar a jubal daf lay may kilifa wala daf lay may sëriñ mënuñ cee déggee kon loolu mooy mooy mooy mooy ne wax ji dafa ashadu an la ilaha illallah yi tamit dafa war a ànd ak ashadu anna muhammadan rasulullah pourquoi parce que dañoo war a jaamu yàlla waaye bu ñuy jaamu yàlla comment nuñ koy jaamoo il faut ñu am kuñ ko rey yoonu yàlla ne laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun wala boog laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminin raufur rahim gis nga gis nga laqat jaakum rek tënk na solidarité ut jàmm tabax ko ci solidarité laqat jaakum tënk na ko parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko yàlla di présenté daf nañu am na ab yonent bu ñëw ci yéen waaye yonent boobu nag qualité ak identité am bu ngeen ko bëggoon a xam yonent la boo xam ne ndaxam kenn la ci yéen de nit la comme yéen seen doom la seen deret la ci yéen la bokk xam nga loolu luñ ciy njëkk a jàngee mooy yàllaa ngi jàngal nit ñi ne feek yaa ngi naan kii sama mbokk la kii sama nawle la diwam moom bërki démb mii maak moom ñoo fi àndoon warta warta warta warta nekk dara wala warta nekk lu ma nekkul feek yaa ngi koy wax doo avancé parce que yonent bi rasulun min anfusikum la yàlla wax yonent la waaye kenn la ci yéen rek seen doom la loolu danañ ko ci njëkk jàngee mu ne azizun alayhi ma anittum seen naqar ak seen coono bu daf koy métti daf koy tiis ci moom mu gis leen ngeen di am ngeen di am naqar wala ngeen di am coono xarisun aleykum ku xër ci yéen la ku xër ci yéen la ba pare ku am yërmande ci yéen gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax mi nga xam ne moom rek la yàlla fonk moom rek la yàlla bind ngir mu boppam lépp lu yàlla bind yonent bee tax mu bind ko yonent bi bi ko yàlla di joxoñ qualité yi tax mu mérité nekk yonent daf ne ay mbokkam buggut ñu sonn ay mbokkam dafa xër ci ñoom ay mbokkam daf leen a yërëm dama ne la yonent bi sallallahu sax bi ko yàlla di présenté wane ne mooy yonent te yonent mooy ki nga xam ne mérité na bépp teraangam mérité na bépp màggal parce que yàllaa ko màggal waaye yàlla yemul rek ci ne maa ko màggal màggal leen ko waaye daf ne xam ngeen ko de kenn la ci yéen seen doom la xam ngeen jikkoom parce que fii la yaro waaye xam ngeen ne am na qualité yoo xam ne bëggut ay mbokkam souffrir xari ani ma xari euh, azizun alayhi ma anittum bëggut ay mbokkam souffrir bëggut ay mbokkam am naqar buggut ñu am jafe-jafe te xër na ci ñoom ba nga xam ne lépp lu baax rek yéene leen ko te am na ci ñoom yërmaande loolu dafa jar a jàngat loolu mooy wane ne euh, xanaa la Baay waxoon ne mu ne ba muy firi euh, ne ni li tax arab yi wax ne alxasuudu laa yasuudu mu ne ku añaan du nekk sang Baay mu ne lu tax mu ne parce que ki añaan yàlla lay xulóot yàlla lay xeexat xam nga am na yoo xam ne c'est très grave yàlla may nit teraanga nga ne noonu waru ko woon a am xam nga yow da ngaa foog ne waa ji ngay waxat mais waxoo moom yàlla ngay waxat yàlla nga wax ne ko da ngaa juum da ngaa juum li nga defaroo koo def wala li nga joxe moomoo ko mais xam nga kuy wax yàlla ne ko da ngaa juum mais ça c'est bu fekkee ne yow nga ne jullit nga ba pare di wax ne yàlla dafa juum yàlla du juum dégg de mu ne kon bàyyi mu ne li tax loolu mooy gis nga yàlla ci alquran demal ci sóoratul Gaasiya euh, yàlla nga fay tudd ay teraanga xam nga yàlla mënoon naa wax ne eh yéen jullit ñi ku xas ba nekk jullit bu tàkk boo bu digg ku julliwu tisbaar balaa tàkkusaan nga dee billaay kon ñii ñàkk julli danañ néew de fekkee dana am waaye yàlla mu ne boo boo baax na demal waaye nag danaa la wax leneen du ma la wax ne la boo julliwut ma rey la waaye danaa la wax ne la boo jullee am na aljanna joo xam ne neex na de am naa ay teraanga yoo xam ne boo ñëwee aljanna sàngara sax danga ko naan dégg nga boo ñëwee aljanna am naa fa euh, yàllaa ngi tudd ci sóoratul Gaasiya bay tudd ay ngegenaay ngegenaay di tudd ay moquette dégg nga di tudd euh, lu kenn xamut waaw di tudd ay jigéen ñoo xam ne nee na Euh, niñ nekkee jànq noonu rafet dootuñ changé maanaam luñ du duñ duñ duñ màgget seen cër yi dara du ci soppe bu ma bëggee sax gën a leeral danaa la wax ne la yàlla àgg na sax naan ci waay ba maanaam am na jigéen ñoo xam ne jigéeni aljanna yi seen ween yi sax du daanu li may wax nag du wax yi kii parce que bu ma tuddee ween yu daanu léegi tey ñu foog ne da mais yàlla alquran lay wax waay ba seen ween yi sax du daanu xam nga li tax may insisté ci loolu mooy bu yàlla bu demee ba àgg ci détail yooyu sax mu di ko tudd pour xemeem loo nit ñi ku àggut ci mën a jaamu yàlla ngir ne yàlla dafa mérité jaamu nga mën a jaamu yàlla parce que yàlla dafa am teraanga bàyyi ñes nag mu ne bu fekkee ne yàlla yooyu yëpp mu ngi koy tudd ci teraanga pour xemeem loo nit ñi jaamu ko yow ngay doomi aadama bugg sa nawle yi def la sang te te amoo njëriñ ndax nga sa bopp wax jaa ngi doon bàyyi ñes daana wax ne mu ne nit bu buggee natt bu nekkee ci biir biiri nawleem bugg a natt boppam ndax sangalaam déet jarut sonn jarut werante su fekkee ne lim am mën na koo bokk ak ay mbokkam ba pare bàyyee leen li ñu am kon sang la su fekkee ne mënu ko ay nawle la am na leen jàppee nawle fekk àggoo ci ñi nga nekkal nga mën a bokk ak ñoom li nga am ba pare bàyyee li ñu am doo leen laaj fekk àggoo foofu doo sang ay nawle nga am xam nga nag yëf yi li ko jaxase yëpp mooy ñàkk a xàmmee sa place nekk ak ay nit ñuy sa naw lañ nga foog ne yaa leen gën wala yaay sang ci seen kaw mais sang dafa am dafa am mandarga yu koy xàmmee sidna Omar bi mu demee ba nekk amirul mu'minin toog ci place yonent bi sallallahu alayhi wa daf ne xam nga lu mu def dafa am benn bés sidna Omar ba muy jël ba muy jël bi muy jël euh, xilaafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit la koo xam ne yàlla daf koo bind mu am mu am jëmm dafa njool lool ba nga xam ne fas yu ndaw yi su ko waraan nii tanki day watatu ci suuf xam nga kooku njool na de kaddom gi dafa am doole ba nga xamne ne bu ko dan misal daf nan bu buy wax ci marché medina nga di deg ci sama tribune bi te lolu digeunte bu sori la manam baat bu kawe la amoon buy waxu bu la xasse ba rombu bo topé ci kawam dootoo ko jot bu xasse ba def ñaari pa rek mon ken mënut ta waxu ba jot ko mu ne bu la pesee nak mom nga deg ndëddi ndax doole waye dooleeb jooju ak kattanam googu yëpp ba ko yàlla defee muy xalifa yonent bi sallallahu alayhi mu xam ne responsabilité dafa garaaw responsabilité boobu dafa koo yóbbu ci muy ñàkk a lekk di ñàkk nelaw ba mujj yi nekk koo xam ne dafa jeex a jeex a jeex a jeex poids dal di wàññeeku. loolu njiit yëpp ak responsabilité yëpp war nañoo jàngee ci moom loolu ndax yaakaar naa ne nit ki dafa amoon. kaddu dafa amoon wér gi yaram dafa amoon nangam dafa amoon nangam te booba amul dërëm faluwut ñun li ñu xam mooy nit ki su faloo ay yéreem dafa war a gën a rafet ay otoom dafa war a gën a rafet lekkam dafa war a gën a neex dégg nga dafa war a gën a tiitaru wane ne man damaa falu waaye Omar ibnul Xataab mooy safaani loolu moom bi mu faloo rek fal gi daf koo mujj indil problème parce que day toog. di lekk mburu mu wow di lekk mburu mu wow ba mburu ba loolu indil ko problème ci biiram bu toogee ak nit ñi di waxtaan di wax dangay dégg biir bi di def xur xur di di def ay baat yoo xam ne lekk gu wow gi muy lekk moo ko waral xam nga lu mu tontu biiram bi muy xuloog biiram bi naan ko sawi sawitii aw laatu laa tusawitii lan tazuuqi laxma xatta yashbaa atfaalul muslimin mu ne billaay biiri Omar bii yaa ngi yuuxu waaye bu yeboo nga yuuxu ba bëgg dee doom mos yàpp mukk feek xale jullit mi ngi xiif yow Omar doo mos yàpp mu nekk ci xiif boobu ba benn bés mu xëy bu xëyee bés bu set su xëyee dafay jël benn gëlem ñu rey ko wala ay gëlem benn wala wala daal rey ko def ko ay saam yóbbuleel kër diw yóbbuleel kër diw mooy miskin yi nga xam ne xam na leen ci Madinatu Munawwara mu xam ne mënuñoo jënd yàpp gëlem ah, bëkk néeg bi ne man daal seetlu naa ne amirul mu'minin ne ñetti fan a ngi nii lekkut ay mburu yu wow rek lay lekk léegi daal li may def mooy bu ñu reyee gëlëm gii ñuy rey ci tay ci suba gi danaa ci jël benn parti defaral ko ko ndékki indi tegal ko ko ndaxam sax li mu jël ci gëlëm gi bariwut li ñuy wax sanaam mooy joggare mooy lii di nekk ci kaw doqi gëlëm gi di def nii waaye comme arab yi dañoo wax ne la yàpp boobu mooy yàpp bi gën a neex ci gëlëm waaye lu tuuti la mu jël ko tegal ko sidina Omar ci ndékkeen amirul muminin xam ngeen luy amirul muminin mooy ki nga xam ne ci wàllu administration ci wàllu àddina moo jiite réew mi mooy président de la république mi ngi mel ni tey ñu ne woon tey Macky Sall mu nekk président de la république en même temps que mooy président de la république mooy imaamul mooy imaam bi nga xam ne bu imaam yëpp dajee moo leen di jiite mu boole ñaari garaat yooyu loolu mooy amirul muminin ci garaatu amirul muminin boobu ñu indil ko ndékki mu xool ko bi ñu ubbee ndékki li rek dafa jug taxaw ne waa ji lii lan la dafa mel ni joggare gëléem nga ma nga ma tegal nii mu a ah, mu ne ko yàqal nga ma ndékki du ma ndékki tey mu ne ko lu ko waral sëñ bi man damaa gis ñetti fan a ngi nii lekkoo mu ne ko man ma nekk njiit di séddale tànn la gën a baax ci séddale ba ma féetale ko sama bopp loolu loolu loolu yonent bi jàngalu ma ko yàqal nga ma ndékki du ma ndékki tey yaakaar naa ne buñ bu bés bu ñu amee njiit bu mel noonu ñi ko ñi koy bañ ñu bari de dëgg la wala dëgg dégg nga de mu ne waa ji wa kayfa yaani nii amru naasi ida lam azuq maa yazuqu waaw man naka laay waxee ne mbiri nit ñi ñor na ma intéressé na ma itteel na ma te mosuma liñ mos buñ buñ nekkee ci coono xaw ma ko buñ nekkee ci problème xaw ma ko te ma ne ma ne liñ nekkee ñor na ma munul nekk yonent bi nag mooy royukaay bi ko yàlla joxoñee moom ne dafa am yërmande ci xeetam dafa kër ci ñu am lu baax dafa ñëweti ci ñoom ci ñu am naqar ñetti qualité yooyu la ko yàlla joxoñee ne ñetti qualité yooyu mooy yi nga xam ne ku ko am sa ñi nga ñi nga bokkal danañ la bëgg te suñ la bëggee xam nga wenn waaye dafa maa dab ne ma dama lay digal ma ne ko loo loo may digal mu ne ma sëriñ bi ñii nit ñi suñ la ñemee bëgg la suñ la bëggee yéene la jàmm wasalaam man maa ngi dem sama yoon ma ne ko wax nga dëgg Cheikh Imam Hassan Cissé nee na bi Serigne Aliou gaañoo am na ci sëriñ yi murid di ku baax ku ñëw ziyaare si ko xam nga ñoom comme ay ay ay ay ay xukkamaa wu lañ maanaam dañoo am ay tënk yu gàtt yu yu am solo boo ma buggee def tuuti parenthèse sax danaa leen ci nettali lu neex parce que ñu ne waa ji dafa ñëw ci sëriñ fàllu ne ah sëñ bi day kër ga dara newu fi mu ne jox leen ko nangam jox leen ko nangam jox leen ko nangam mu dem mu demaat ba mu yàgg yàggul dara mu ñëwati ne sëñ bi kër ga dara newu fa jox leen ko nangam jox leen ko nangam mu dem mu demati yàggul mu dellu dellu seeti mu ne ko sama ay man ngaa bindam mu ne mu ne ko bindal ci suuf kër mu bind mu ne ko teg ci beneen kër mu teg ci teg ci beneen kër muy ñett mu ne jàngal mu commencé jàng mu ne ko gaawal waay mu ne kër kër mu ne ko sëñ bi kër kër kër yi waay demal waay kër kër kër yi xam nga loolu mooy wane ne yëf yi tamit dafa am dafa am dafa am yoon waaye yonent bi sallallahu alayhi bi ko yàlla joxoñee noonu ba pare di ko di ko di ko di ko tagg bi mu paree dafa wane ne jullit ñi ànd ak moom ci wàllu dimbalante ak ànd buy indi jàmm naka lay mel mu ne muhammadu rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkufaari ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaquuna fadlan min allaahi wa ridwanan في سيماهم في أثر في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم الجين بام جيخ نينا كيد محمد صلى الله عليه وسلم موي رسول الله واي رسول الله يبو جيس دافا ام نيو خامني نيو اندك مو اندك مو غوغو لون تاي جيلي اك بان ملوكاني لأندك يو اندك يونتي ورا جورال نيت mu ne acidaaw alal kufaari ruhamaa baynahum xam nga loolu bu ma ko bëggee tënk mooy lu muy tekki mooy mbooloom jullit muy ànd di dimbalante ngir yàlla mooy mbooloo man mooy mbooloo moo xam ne dañuy dimbalante ci lépp lu baax jàppalante ci uufante yërëmante waaye nag lépp lu bon duñ ko bañ individuellement rek yem ca mais dañuy ànd bañ a ndoor ko ñépp ànd ci boo nekkee ci lu baax ñépp ànd ci jàppale la boo nekkee ci jubadi ñëpp jàmbu la boo ko defee ci société lu bari mën na faa mën na faa mën na faa bañ a am xam nga fii Sénégal dañuy wax ne sénégalais xamut ku tooñ ku fayu la xam nit daf lay tooñ ngay muñ mu di la tooñ ngay muñ te nit ñaa ngi ci teg bët de ba nga sës waxuma sax nga jël kii dal ci kaw waaye nga dem gendarmerie léegi wala police wala tribunal buñ ko oowee rek mbokk yëpp jug waaye tey nga koo baal waay waaye tey ngaa seet mbokk gi waaye waaye nangam nangam waay waaye te kenn du ko wax dara soo bañee ñu far mere la ne moom kat nit ñëpp kilifa yëpp ñaan nañ ko mu bañ moo ñàkk kersa moo moo moo dëgër bopp ñëpp ñaan nañ ko mu bañ bu ëllëgee loola dal ñu ne ci loolu la jógee xam nga loolu mooy encouragé caay-caay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne dimbaleel sa mbokk suñ ko tooñee ak su tooñee ñu ne ko ah yaa ngi ñuy bëgg a jaaxal nag parce que ñun xam nañ mbokk mu tooñ mbokk muñ tooñ ñu dimbale ko mais ku tooñ moom ñu dimbale ko loolu mooy lan mu ne ku tooñ dimbale ko mooy nga wan ko ne ko hey man du ànd ak nit ci tooñ du ma la dimbale ci tooñ nee na boo ko ko boo ko waxee tooñkat dimbale nga su demoon ba xam ne bu tooñee kenn du ko dimbale kon gor kon kon kon du tooñ dégg mu ne simaahum fi wujuhi min asari sujud sujjóot ñu dëkkee di julli ba bëccëg dafay feeñal mandarga ci ñoom waxuma mandarga yi nga xam ne mooy feeñ fii parce que waa ji daf doon sujjóot euh, ba ba ba xarax bi lakk baax na nag parce que ku dëkk ci sujjóot tamit ba am mandarga kenn du wax ne lu bon la waaye nag am na màndarga bu feeñ mais am na mandarga boo xam ne mooy mandarga boo xam ne baatin la mooy julli julli mandargaam ne jullit nga mandargaam ne heure bu nekk yaa ngi jox kook yàlla dafa war a feeñ ci yow dégg de buñ jógee ci ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammad ñëw ci taxawal julli juróom xam nga nu ma koy tënkee du yéen ñëpp jàng ngeen ci téere yi wala dégg ngeen boroom xam-xam yi ñu wax ne julli rendez-vous la boo xam ne da nga koo am ak sa borom mu mel ni tey ku président de la république mayoon audience ne la ñëwal palais ma ak yow loolu rek misal xam nga loolu lu reey kon nak am audience ak yalla ci boppam ci allah yalla ci paleem xam nga loolu lu ne la da nga am audience ak yalla motax demal bo waré sangu nga sangu bo paré jappal fekkee waro sangu nga japp bo paré solal sa bubu mu rafet laalal parfum boy dem ci jumaa ja bul waxu bu ëpp doxal ndank même buñ taxawalee julli gi sax doxal rek dox bu bu bu baax soo demee loo fa fekk julli buñ boo buñ la jiitoo nga mottali parce que kuy dem ci audience da ngaa war a ànd ak dal ànd ak waroo àgg di xaxat waroo ànd àgg di ñaq kon julli noonu la fooree waaye xam nga lan mooy secret bi julli moomu nga xam ne noonu la fooree rendez boo am ak yàlla la nga préparé sangu jàpp laal sa parfum dox ndànk dem ba àgg ca jumaa ja est-ce que ba nga demee yàlla fekk nga fa yàlla ba nga duggee ci biir jumaa ji est-ce que est-ce que fekk nga fa yàlla wala boog fi nga jógee di dem ci jumaa ji yàlla dafa newut déedéet mais bi nga ñëwee ci jumaa ji fekkoo fi yàlla parce que fi nga jugee fi ñàkkoo fee fekk xaw ma xaw ma nu ma koy waxee fekkoo fi yàlla ci waxin bu ma ko mën a waxee waaye koo fa fekk doomi aadama nga fa fekk te yàlla moo la wax ne la xam nga mi ngi mel ni Macky Sall waxoon ne la kaay ma ma recevoir la audience nga dem ba ca audience ba fekk fa premier ministre fekkoo fa président loolu lu muy tekki mooy ne premier ministre moo taxaw taxawaayu président recevoir la wax ak yow bërki démb am nañ audience ak gouverneur Kaolack mais ba ñu àggee daf ñoo euh, adjoint gouverneur moo ñu recevoir est-ce que da ngay wax ne gouverneur recevoir wu la gouverneur moo la recevoir waaye bii yoon nag yàlla daf na la ñëwal ma recevoir la audience te yàlla du fo te yàlla du jaawale te yàlla du naax dégg nga te moom teew fu ne la mu ngi mu ngi ko def heure bu nekk donc amul problème mu naan damaa tukki woon wala dama fay nekkut yàllaa ngi fu ne mais bi nga ñëwee daf laa booleek doomi aadama mu recevoir la ci rendez-vous bu sérieux xam nga loolu lu muy tekki mooy daf lay jàngal ne la doomi aadama mooy sama xalifa ci kaw suuf lépp looy def ci lu baax jaarale ko ci doomi aadama boo buggee ñëw ci man boo jaarut ci doomi aadama ba bés pénc doo agsi ci man loolu rek la la yàlla bëgg a wax donc doomi aadama noonu la fore ba tax lépp lu doomi aadama di def rek daf ko war a def ci ci doomi aadama yi xam nga bàyyi bi ñu ko laajee ne ko julli maanaam ut jàmm noo koy tënkee daf ne waxuma sax ut jàmm waaye l'islam laa leen di tënkal lislaam boo ko bëggoon a tënk jëfi lislaam yépp programme l'islam yépp boo ko bëggoon a tënkal nit da ngay xool dangay jël julli julli boroom xam-xam yi dañoo wax ne mi ngi mel ci jëmm nii bopp mel ci jëmm cër bu nekk mën naa dagg yaram bi continuer di dund ba mu des bopp gisagu leen fenn fuñ dagg kuñ dagg boppam muy dund te cër bu nekk nag mën naa dagg du tere nit ki di dund loolu li muy tekk mooy lu nekk nit mën na koo def tudd jullit ba mu des ñàkk julli bàyyi sax daana wax ne mu ne foofu la gisee fu arab fu olof gën a fasaayee arab ci benn baat boobu parce que olof moom jullit la wax maanaam tënku ko ci ne ku jullit bokkoo ci boo boo arab muslim lay wax boo boo waxee muslim foog ñu laaj la muslim mooy lan mais jullit moom kenn du ko laajte loolu mooy kuy julli moom ñëpp xam nañ dégg de mu ne julli moom nga xam ne noonu la mel ci lislaam boo koy def fooy commencé ci allahu akbar bi nga toogee ci jumaa ji ñu noddu imaam ñëwagul am nga droit wax waxtaan am nga droit waxtaan euh, pro kii euh, jaay fa sax ngeen waxante ne buñ génnee ma ma ma def la nangam nangam nangam ma jaay la wala nangam lu nekk loo xam ne nii du lu bon am nañ droit waxtaanee ko ci biir jumaa ji dëgg la wala dëgg waaye buñ xasee ba wax allahu akbar dootoo wax ak kenn ku dut yàlla. dootoo jaay dootoo jënd dootoo lekk dootoo naan dootoo wax kenn lu lu dul allahu rek akbar di màggal yàlla rek di sëgg ka siggi rek maanaam allahu akbar mooy yàlla rek a màgg parce que bàyyi mu ne bul ko firee yàllaa gën a màgg parce que yàlla nekku fee keneen ku muy gën a màggante yàlla màgg rek lay teg mu ne sax boo déggee allahu akbar soo ko xasee ba wax ba julli ba pare soo fa jógee dootoo màggal leneen lu dul yàlla te yàlla taxu parce que yàlla wax yaa wax ne yàlla rek a màgg kon waroto magal leneen luddut yalla ta yalla tax boko waxe rek witi nga allahu akbar ji nga don wax legi mune nga nek ci allahu akbar joju talo ben domi adama sa yaay bu don wax ak mom doko doko uyu sa baye bu don wax ak mom doko uyu president bu don wax ak mom doko uyu do uyu ken nek ci rek ci programme yalla, yang ngi koy magal ngi di di toroxlu ci sa kanam diko wonne ko yow ya mag man ni la tollu man ma man ma torox man mi nga xamne man ma torox motax may bon comme julli jotoo la sama julli jotee ñu julli fekk mën nañu julli fi waaw nah. nga kon mu ne bi nga nekkee ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu bi nga buggee génnaat ci programme boobu dellu siyaat ci nit ñi diganti wax lu muy tekki leen may donc allahu akbar ak limiteki li muy tekki moy programme ak toroxlul ko ak ut jàmm jëmale ko ci mi mbindeef yàlla yi loolu rek mooy programme ul bu la neexee nga détaillé ko waaye programme bi yëpp ci loolu la tënku allahu akbar moo tax euh, dañuy taxaw ba julli timis waaye danaa danaa danaa ko tënk ci ne alaaji abdoulaye mu bàyyi dafa am benn jàkk bu amoon problème ñu naan euh, kii bi ah c'est pas nañ nañ fi julli de ah, xaw ma de comme timis dal waaw dégg de bi loolu amee ñu naan imaam bi fii la bokk ak du taalibe euh, kii ak taalibe kii ak taalibe kii fi nekk ak kii moo war a naanga nangam naanga nangam ak nangam taalibe bàyyi def délégation ñëw di ko laaj ne ko waaw jumaa ji dafa am werante ñu naan kii ak kii nangam ak nangam xam nga xam nga ko demoon lu mu ko wax déet mu ne ko yow demal kii mu ne déet xam nga kooku dafa bañ bàyyi xaw ma lan lan bàyyi alaaji Ablaay ne ko xam lu ma lay yëgal mu naa ah, mu ne ko diggante allahu akbar ak asalaamaaleykum. kuloo hmm. xaju fa demal nga julli ji bu julli ji paree nga dem sa macha allah waaw kon loolu mooy mooy wax ji kee nag comme nee nañ tibis jot na su fekkee ne am na fuñ mën a jullee fii ñu jéem a taxaw jullee après ñu continuer